Laurent loo may ñawal. ñaw séeréer. waaw. dinaa la dinaa ñaanal benn may la ko. man maay en le petit enseignant de Fadiouth damay jàngale. Mhm. waaye yàlla daf maa woy. waaw wayal ma tuuti. ne jata ba malizar embilo jinda hada otelanga moye azulir wengatir ijata e vamalizar hembilejindada otelanga moyeglo he azulir wengatir ijata e vamalizar hembilejindada otelanga moyeglo he azulir wengatir